président ñu ngi nuyu ñëpp kenn ku ci nekk turam ak santam di ñaan it feebar bi yàlla nañu ci yàlla musal kan li ñuy leer li gën a li jar a gën a leeral mooy comme li mu wax léegi en tout cas man dinaa tënk pré trésor mu ngi toog parce que maire commune la xam naa gestion nu muy demee xam naa ci lu bari waaye transparence bi vraiment ñun ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax di ko ndamloo aussi parce que ay jàngkat ñoo fi nekk lii laa jënd kii moo ma jox xaalis fii laa ko jëndee facture yaa ngi nii ñii laa ko jox ku ci bëgg ñëwal xool transparence amul la loolu nag président dañ la koy gërëmee di la ko remercier parce que loolu dafa bonk ci ponk politique yi nga xam ne président Macky Sall moom la soxla ci askan bi askan bi même ñun maire yi taxaw ni loolu la soxla su ñun buñ ko defee loolu lañ soxla buñ ko deful loolu lañ soxla heureusement ñun conseil départemental bi ñëw fekk ko suñu donc loolu dañ koy sant yàlla bu baax li nga wax nag dafa am solo jël alal nit ñi delloo ko ci nit ñi loolu mooy jox nit ñi lañ moom mateewul nag ñëpp waaye nag commune bu nekk la nga fa def ñun ña fa nekk ay maire bu jëlee dolli ca la nga def yaakaar naa bu ñëpp dajuri la fay des du bari di ñaan yàlla initiative bi daal liñ ci jublu mooy jàppale nit ñi yàlla nañu ko yàlla defal feebar bi yàlla dàqal ñu ko. maa ngi tudd Diatou Dramé nekk conseiller fii si commune Nioro ñaari jëf nag moo tax ma benn bi premier bi témoignage la. parce que am na loo xam ne boo ko fekkee gis ko wax jot te waxoo ko dafay nuru leneen conseillère laa mais kii fu mu jaar mbedd mu mu jaar ba yegg si fii ak mbedd ma jaar ba yegg muy président du benn ñun ñëpp ay conseillers mais man dootuma si gannaaw kenn waaye su nit defee dara te mu nga fekkee ko te waxoo ko te bés boobu jot loolu day nuru leneen président keroog bi nga xamee ne bagage yi ñëw na mu bëgg mu bëgg a intervenir si structure de santé yi nekk fii si commune bi dafa ma xëy di woo suba ba midi jotul ma jël otoom ñëw bu sama kër fekk sama portable daaru si ndox ma jël ko dugal si saako jee mu ne suba tey maa ngi lay woo mu ñëw wan ma bagage yi ne ma woowal structure de santé yi nekk si commune bi ku si nekk am nga fi wàll mu ñëw jël si ko ma woo leen ñu ñëw ba mu leen koy jox damaa taxaw fekkee ko ku nekk mu jox la lam leen jox am si ñoom njëriñ lool ndax dem na ba sa personnel communautaire ba personnel communautaire bi am neen si ceeb bi gaa gaa yi dem na fa saabu yi dem na fa lépp dem na fa bon su ma ko fekkee te waxuma ko muy muy rendre compte bon dafay mel ni man liñ fuñ ma teg du ma foofu te dama fi nekkal askan bi jot neen yóbbante bi ñoo ngi lay jaaraamal président jërëjëf. asalaamaaleykum man maa ngi tudd Soxna seen Sow di conseillère départementale maa ngi dëkk Médina sabax di gërëm rekk président Malaw ci initiative bi mu def waaye nag di rafetlu leer leer bi surtout leer leer bi ndax nit jën na initiative ne nangam laay def te nangam jooju dara leeru ci waaye lii tey amul kenn ku am loo ko ci reproché kuy bénéficiaire xam nañ la ku ñu jox xam nañ ko quota bu mu jënd yëpp xam nañ ko facture yaa ngi nii ne dàng lii laa wax ne mooy avancé loo réew réew toujours dañ ko war a teg ci dëgg teg ko ci leer-leer man de kuy nitu dëgg ku ne mën naa ànd ak yow ndax moom mu ngi nii de au début amoon nañ problème mais léegi foog naa ne ñun ñaar ku ñu gën a juboo ci conseil bi amul ba ma xoolee jikkoom xam ne kii nitu dëgg la ma ne kii nit war naa mun a def man nag sama politique du politique wu euh, opposition di di sànni xeer déedéet su ma gisee luy dëgg dama naan lii dëgg la président Malaw lii nga def nag maa ngi ko doog a gis man ci séddale bi te yal na law nag ñëpp toppandoor lii ndax loolu la la yàlla bëgg moom la yonent bi bëgg président de la république it loolu la santaane kon nag li ñuy li ñuy santaane nañ ciy jaar dëgg mooy jëkk mooy mujj di gërëm ñëpp di leen sant wasalaam. maa ngi nuyu ñëpp man baa maa ngi tudd Bara Ndiaye au conseil nekk conseil départemental bu Nioro di rafetlu euh, président li nga xam ne tey moom nga def leer bi nga leeral nii. tey même ba wootu na nit ñu bëri xam na ne mbir mi leer na waaye gën a leer moo tax nga woote ku fi ñëw tey sa xel daan na ci li nga def kontaan ci li nga def te li nga def ci département bi yaakaar naa boo amoon keneen ko def ñëppay daj te dajal nga daanaka. réunion bi eh, jàpp naa ci ay point yoo xam ne yi waxoon naa ne dinaa ko wax eh, benn bi mooy ni nga xam ne moom la ñu exécuté marché bi parce que commande publique. doxalam dafa am maana ku ne xam na ne état am na nu war a jëndee am na nu war a doxalee donc nu ñuy exercer commande publique bi vraiment rafet na bu baax a baax amuñ dara luñ ciy teg jaar na ci yoon. leneen li ma ciy wax beneen point bi comme tënkale rek mooy reddition des comptes reddition des comptes dafa bokk ci code bi donc nit soo koy defal ba nga xam ne bii la ngay def pare da nga ko war a rendre compte. exercice bi ñu ko defee nii rafet na parce que papier yi nga xam ne moom lañu indi en facturation jël par exemple père ne ko toogal mu toog déglu jël acteurs yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci localité yi ñu leen kaay ngeen xool seen i këyit système boobu suñ ko defee une belle reddition des comptes lay indi donc tey jii amul ku fiy génn di laam-laamee ne affaire bi dañ ko jalgati. may Awa Dramé nag conseil poste coto départ conseil département. di sant nag di gërëm laaji maalaw def dafay woo seede ñëpp ñu toog waaw ñëpp ñu toog préfet toog liggéey bi rafet na yal na ndombo tànk gi yàgg Keita conseil conseil départemental Kër Maba mënoon naa ci ñàkk wax waaye in faut ma wàccu ci comme retard naa ñëw te soo fekkee mbooloo toog ba pare nga war cee jiitu nga mujj ñëw dafay jaadu nga am loo ci waa tuuti rek parce que dama amoon euh, lu ma doon def te yéex a ko yéeg tuuti waaye comme ni ko ñëpp wax rek loolu moo fi nekk kër ma ba dee ku fa dem ku nekk yaa xam nga nekk seen daara yaa xam nga nekk borom dëkk yaa xam nga nekk responsable njëriñ maalaw moom njëriñ conseil départemental yegg na kër ma ba bu baax te gars ñu ngi ci sant bu baax yi nag parce que lépp lu mu def yëg naa ko te li ci gën a sama loxo lay jaar. mu ndaw bi tey la conseiller départemental jugee commune bu Taïba Niassène li may wax président lii daanaka mënoon na ko cee ñàkk fekk sax parce que leer na nañ ci suñu bopp yi yaakaar naa commune bu ci nekk lim ca wax. ñun conseil yi toog xam nañ ko bi ne commune bu ba seen liste ngi ni ñun jëluñ ko parce que li ta jëluñ ko sëriñ daara yi fa jugee koo ñëw yëpp xam nañ leen parce que ci ñun la jaar ñu oo leen ñu ñëw jël si seen ceebak seen xaalis biñ leen jox. docteur ba fa nekk ñu ICP bi ñu nag moom ñoo ànd fii mu ñëw jël si ay médicament ma yëppam chef de village yi fa nekk ñun ñoo leen woo ñu ñëw jël si seeni ceeb fii kon bu fekkonte ne oote wu rendre compte sax ñun la ci nekk yëpp xam nañ ko lenn nag lañuy ñuy le président Macky Sall ne président Malaw mii jafe na ci président conseil départemental yaakaar naa boo doon wër Sénégal yépp man de gisaguma président conseil départemental boo xam ne li mu leeral leeral nga ko gisuma it président conseil départemental boo xam ne lim mën ci social man nga ko ci social. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam man la Amadou Sow conseil départemental dëkk Porokhane eh, jiital ci nuyoo bi le président du conseil départemental Malosso, honorable au conseil papa le maire Goumba et le bureau bi sama avons le président euh, kaddu bi may témoignage à l'endroit du président du conseil départemental politique ba mooy li nga xam ne xëj na moo tax yàlla seet ko mu fal ko mu jiital ko ci président conseil départemental mooy yërmande bu mu am ci askan wi. lu ñu yëg ak lu ñu yëgut ñu ngi dégg lu ñu fekkee ak lu ñu fekkee ñu ngi dégg lu muy def ci nit ñi at bu jot nag at bu jot nii la. parce que moom nekk na nit koo xam ne mboolem loo xam ne sur le plan social fii ci département bi gisuma ku ko ci raw ci social. lu mu luñ ko jox daf ko ciy def lu mu am daf ko ciy dolli lu mu am daf koy joxe ba mu pare ba mu jeex luñ ko jox mu indi mu def ko ci. borom dëkk Pakane Kër Gaañi Alaaji Mor Cissé ñu ngi wax ci turu borom dëkk yi rek ñu ngi gërëm da sant ndax doomu aadama mënu dara amul dara waaye ko mel ni maalaw nii jàpp borom dëkk yi jàpp koñ si jàpp borom daara yi ñëpp kenn ku ne mu ne la am ma dimbali la lii loolu dañ ko war a sant gërëm ko.